Assalamualaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tubarkàlla mbokki téléspectateurs yi ñuy sétan ci mim réew ak bitim réew amunu sen fay Yalla na yalla fayal boppam ndax tubarkàlla lu ngeen def rek yalla ya tax ngeen def ko way du sunu jëmm yi ngi nuy nak bép kilifa diiné bu nekk ci réew mi bép kilifa aada moo xam foo mën a bokk moo xam nga bokk ci tarixa tijaaniya moo xam nga bokk ci tarixa ñaseen baa nga bokk ci tarixa cheikh Omar Foutiyou Tall tubarkàlla wala nga bokk ci tarixa cheikh na cheikh bu baa ci tarixa maam Limaamu Laay baa ci tarixa Muridiya foo mën a bokk rek Omaro moom Cheikh Béthio jox na la kàddoom jox na la loxoom nuy na la sargal na la bégal na la mi ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm tubarkàlla nag di baalu àq réew mépp di baal ñëpp àq di ñaanal ñëpp kooru jàmm ñu ngi ñaan ñu woor ci jàmm te it nag war ci jàmm ci barke ki nga xam ne mooy sunu sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tubarkàlla gannaaw ba nuyoo kilifa diine kilifa aada yi ak mbokki taalibe yi mbokki yi mbokki nit ñi baax ñu nga toog seen kër duñu seetaan dañuy dem ba ci lal hôpital yi nuyu ñi nga xam ne yàlla dogal na tubarkàlla tawat tagu ci seen kaw yàlla na ko yàlla saafara ci jàmm ak salaam ba nu mën a delluwaat seen jaboot nuyoo nit sunu nawle yi nga xam ne dañu nekk ci tubarkàlla ci ay tolof tolof yàlla dogal caabi féete leen ginnaaw nuyu nanu leen sargal nanu leen bëggee nanu leen ñaanal nanu leen yàlla yeewee leen ba nu mën a delluwaat seen i njaboot ñi ngi jéggalu wér wér nag ci retard wi problème technique la rek am luñ doon yeesalaat doon ko waajal moo waraloon mu xaw a demee nii waaye nag tuub nañ ko lu bëree bari ñi ngi ñaan ñëpp am jàmm di ziar nag euh, di di di di di jaale askanu murit ndax dañu ñàkk ku rëy ñun murit muy sëriñ As Gédé Mbàkke kooku mooy bàyyi Serigne Mamour Mbacke tubarkàlla ñi ngi koy jaale yoonu murit gépp di ko jaale képp kuy taalibi Serigne Touba képp kuy jullit képp kuy nit ku baax rek ñi ngi lay jaale Serigne Asgade Mbacke di ko ziyaare waa Daaru Salaam gépp rawatina nag sama téere boobu nga xam ne mooy Babacar Ndiaye jàmbaari Daaru Salaam Couture gi boo mbokk téléspectateurs yi xol sedd na xol féex na day tàng day neex dañuy yokk cere dolli ñeex ba tax na toogaay amul nan dem régi rek xool la nga xam ne tubarkàlla moom la Moustapha Samb indi tey muy clip bu bees tàkk di exclusivité ñu war koo teg fii tey ci émission candik ngeen seetaan ko Moustapha am lu mu leeral nag ci bisu pénc am lu mu leeral ci bàmmeel am lu mu leeral ci yowmal xiyaam ci way wi te lépp nekk ci alxuraan ak xadis yonent bi nanu dama dee ci seetaan ko te ñëw tubarkàlla macha allah ngeen jëf bismillah ngeen nelaw ngeen oh. waaye ñi si biir suuf ñoom kay nelawuñu aji nelaw ngeen nelaw ngeen noo oh. waaye ñi si suuf ñoom kay nelawuñu ñoom ñu suuf sangoo suuf njege suuf taw mi di taw ci seen kaw ñoom kay nelawuñu bés la bu rëy boo xam ni bii xalaat ke doy na liggéey ndax yàgg-yàgg fekki ko ñu xam ni yàlla mu ku dund bu gaaw gi tax nga bew dund gu neex gi tax nga na sax yowmal xiyaam jadaa torox ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi ku dund bu gaaw gi tax nga bew amoo gannaaw amoo kanam xalaat yi lal ci sab xel ñu xam ni yàlla moo borom jaam ñi laxira yaana loolu aaju fa jëm de war koo waajal ndaxte siraat dafa sew te ratax ñu xam yàlla mooy borom jaam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha taar bu rëy a rëy da lay yabal mu ñëw ba tiim la naan la jógal tey la sëlis xam yàlla mooy mbirum jaam wuy nga la ñu nag bàmmeel na maayu bàmmeel wuy nga la ñu nag bàmmeel wuy nga damaayu bàmmeel nga a toog sa bis malaaka bay rocc sa ruux lool te doo xaru ñu xam ni yàlla mooy borom jaam di jooy ndey di jooy bàyyi di jooy rakk di jooy jabar di jooy dëkkandoo ya àndandoo di jooy kenn du sa mën dul di ñu xam ni yàlla mooy borom jaam yi yi fas kuru ñi fas kula wi gaa ñi fa deni kuleen dañuy moso bu wee mu yomb lool la lay alal yee yëpp daal ni mes dal jarax sax ndeysaan ndeysaan tubarkàlla ñu ngi koy ziar di ko sargal lu bare bari sunu soppe boobu sunu xarit boobu nga xam ne moom la ñuy wax Moustapha Samb nit ku yàlla baaxal xale bu am jom tubarkàlla macha allah mu way lu rëy nag ci bisu penc way lu rëy te lii dafa mat a bàyyi xel xeetu way yu mel nii ni waykatu diine yëpp maag ñëpp la war ñu ciy way di fàttali nit ñi ne wax dëgg yàlla dund gi neex na lekk wi neex na naan wi neex na li ñu ciy dund ci biir neex na waaye nag dee day am nan koy waajal bisimilah mbokk mi ci ligne bi kookan la. allo Omaro. ñu ngi lay ziare sang bi yow la kan. man la le grand Cheikh Béthio. ah kooku sama seex la mbokk ndey jur la grand na moon naa بالله ما على راسي baa yaa ngi am jàmm mon ami. waaw ñu ngi sant sëñ Saliou bu baax a baax a baax. marxaban marxaban marxaban bikum yàlla na sant yàgg. yàlla na sant yàgg di la bëggee di la siyaare di la ndokkale. waaye jërëjëf waay Koli jërëjëf. di la wax ni ngay doxee lépp rafet na. jërëjëf Koli. ñu ngi sant sëñ Saliou Mbacke bu baax a baax si ni ngay doxee. ndeysaan jërëjëf la grand. daal lépp rafet na. jërëjëf la grand. ñu ñaan nga gën a góorgóorlu rek te xam ne daal lii nii nga nekkee daal moom bëgg nañ si. jërëjëf jërëjëf. te xamal ne saa su ne daal maa ngi sa ginnaaw daal. ndeysaan ndeysaan bilaay moo baax. Elimane Ndiaye mu Cheikh Béthio. ndeysaan. mu ngi nuyu di la siyaare. waaye ziaral ma ko sama xarit ba. sama papa mu ngi lay sama yaay kooku sama baay la sa yaay sama yaay la yow ñoo bokk ndey ak baay ma ak yow kuli. loolu am na nee naa la sama seex nga ku ku bëgg a gis Seex eh, Omaro rek na la jàpp yow yow ku ma jam yaay naat ci le grand tubarkalla. billaay dëgg la doom xale bu am jom nit ku yàlla baaxal yàlla na la yàlla defal jàmm. jërëjëf ñu ngi lay bu baax a baax a baax. bëgg naa lool bëgg naa lool sama xol sedd na guy sama xol sedd na guy. jërëjëf Dame Ndeye ndeysaan sama xol sedd na guy jërëjëf la grand jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf mon frère kontaan naa ci yow. ndeysaan tubarkàlla sama xol sedd seddati na ki dugg léegi sama seex la nee naa la tey boo doon seet Omaro jàppal jëmu jooju te xam ne lu la réer ci moom rek ma nga ca ma moom muy le grand Bakary Koli ca Mermoz nuyu nañ ko nuyu nanu yaayam ju baax ja kër ga nuyu nanu papam ak mbokki taalibe yi waa kër sëñ Béthio yëpp nga xam ne ñoom la wax seen kàddu Iliman Ndiaye mu baax moomu ñu ngi koy sargal di ko béggee di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm dañuy dem nag ba parcelle nuyu fa kilifa diina gu mag ñu koy wax Baye Cissé borom aadama yi di leen teral moo may invité ndogu tey na waxoon naa la fii ba koor gi jeex bis bu set ak invitation bu bees ak cam mbokk mi ci ligne bi bisimilah koo kan la. allo waaw ba ñu ngi lay ziar sang bi yow la kan. delloo ziar man ah, naa la waaye. delloo ziar. maa ngi lay bëggee naka waa parcelle. waaw parcelle jëmm bi waaye tamit yow kontaan naa kontaan ah, sama xol sedd na. ñoom Xaarim Seck. ah Xaarim Seck kooku sama rakk bopp la kooku sama rakk la. waaw waaw waaw waaw rakk bàyyi. ndeysaan kooku sama rakk la kooku sama rakk la. Matar ñoom ñëpp ñu ngi lay may di ka. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di ngay di ngay may booy mën ka. ndeysaan. Mm, mm. ay ñoom Baye. ay sëriñ waa ay Bira. dëgg la dëgg la. ah ay ñoom Aliou Seck. ndeysaan mu Ama ndeysaan. ñëpp bi leen may dédicace. incha allahu rabbi incha yàlla yow nga jëm yow. Baay may naa la benn CD may naa la benn CD. baal foofu baal foofu baal foofu sa numéro téléphone. bu bu yëf yi jeexee Baye jiir dana la woo jox la ko incha allahu rabbi. waaw waaw dana la jox benn CD bu soobee yàlla dana la jox benn. incha allahu kontaan naa ci yow kontaan naa ci yow. yow nekkal jàmm yow dundal. yàlla na la yàlla dafa jàmm mon frère. yàlla dundal yow Baye Faal nga kontaan naa kontaan li ngay seen kanam yàlla na ko yàlla na yàlla àggale amiin amiin am yow yàlla nañ ko bokk jërëjëf jërëjëf baax nga borom baax nga ndeysaan waay marxaban marxaban jërëjëf tubarkàlla yéen rek a baax kenn du yéen doole jën ndox la sunu doole yéen la suñu waxi démb mooy suñu waxi tey amuñu fi wala ñu mel fi wala ñu def fi lu nit ñi bëggee ba ñu war a mën a taxaw ci télé nit ñi duñu woo ñun mérité wuñu sax dina woo ci seen numéro direct dépenser cent franc crédit waxatuma nag nag woote télévision nga xam ne ni métier balaa nga caa dugg foo nga am crédit bu doy bu ngeen di jël seen crédit di ko def suñu jëmm yi amuñu lu dul sargal leen ak béggeel leen ñaan leen yàlla defal leen jàmm borom kéemaan ca kéemaan yu bari ya bàyyi siise yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu ngi waajal suñu bis bu mag ba nag jeex suñu soppee ne Mauritanie yëpp nañu waajal te xam ne altine la ñuy ñëw maag bàyyi siise borom kéemaan ña nga ca Mauritanie altine incha allahu rabbi di ci ziar nag euh, xaritam ba soppem ba doomam dañu ko wax dégg daaj ak Moustapha ak soxna waa këram gépp nuyu nañ leen sargal nañ leen ña nga jëm nag ca Tafra Zeyna Tafra Zeyna foofu lañ jëm ca Mauritanie tubarkàlla dana tàng dana neex nan ko waajal te xaar nu duñu fàtte suñu jigéen ju baax ja borom wakaam muy Awa Fall xale bu yàlla baaxal kooku mooy doomu doomu Adja Caba Ndiaye tubarkàlla xale bu am jom yàlla na ko yàlla defal jàmm te wéral ay cëram guddal ay fanam kon nag dañuy dem régie seetaan publicité te delluwaat ci plateau bi bisimilah publicité bi soxna soxna si bu fekkee noppi na bu fekkee noppi na rek ñu dem seetaan publicité bi xool sunu sponsor bi sunu partenaire bi Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall lim nu indil tey ci bis bi ñu xool ko tëddi kaat ak jàmm ci plateau bi bisimilah. إنني clinique tradipraticien xewalu Seydina Mouhamed mbokk yi xewalu Seydina Mouhamed yaa ngoog la mu baaxee askan wi baaxee ko àdduna ña nga nekk numéro 134 Golf Nord ca Géejawaay arrêt Double Less mbokk yi am nañu nag li nga xam ni mbokk yi moom la ñëpp di wër cabinet médical tradipraticien xéwalu Seydina Mohamed mën na faj feebar yi jàppale leen ci bu baax a baax a baax a baax ma ne yàlla kat mooy maye te nag lii xéwalu Seydina Mohamed la tudd Serigne Lamine Bara nekk ca géejawaay are duubal lees nekk ci étage bu weex bi te taqaloo ak bisis bi moo leen di woo jël leen numéro bi ndaxte ay xéwal dong ñoo fa nekk ndeysaan tubarkàll ne naa la jàmbaar jàngoog jàmbaar géejawaay ji faj ajo yaa ci gën a gaaw loo wax sa borom mu ne waaw sëriñ Mamadou Lamine Bara Fall borom mbàgg mystique yu am solo yi nga xam ne yi nga na réew mi kon sëriñ Bala ñu ngi lay sargal di la bëggee di la ñaanal yàlla defal la jàmm sa taxawaay rafet na ci ñun taxaw gi nga nuy taxaw dinu dimbali ci émission bi suñu xol sedd na ci yàlla na jëm kanam ñu la ci gërëm di ci sant tubarkalla nag dañu ko sargal di ko bégee di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ko koy mbokkum yaayu géy biraayim mu baax ma tubarkalla ngi leen ziyaare Pape ak King Cheikh Omar Ndiaye jàmbaari bu baax ba sargal nañ ko bégee nañ ko duñu fàtte nag waa Gabon ñu ngi ñuy woo di apprécier émission bi di ko rafetlu di ci wane seen mbégte ak seen kontante kon mbokk mi ci ligne bi bisimilah allo alo allo euh, Mouride delloo ziar mbokk moomu kookaan la ak fan ngay wootee. man Alseyni. <laughs> ah sama xarit sama doom yaay maa ngi lay bëggee di la ziar. maa bu baax a baax. naka sa koor yaakaar naa ne xiifoo de. non non mu Seex Béthio kenn du jàkkaar nag moom di xiif. moo rawatina ko jàkkaarloog ñoom tawat da ngay faju barki Serigne Saliou. ah kon day faj feebar yi. moo déggoo man na keroog moo ma fajal. barki sax ba te moo ma faj. ndeysaan ndeysaan bilaay kontaan naa bilaay kontaan naa kontaan naa da ngaa baax rek da ngaa baax rek si si ndeysaan dëgg la amin amin yaa rabbal amin amin ndeysaan sunu xol sedd na ci yow Alseyni sunu xol sedd sunu xol sedd na sunu xol sedd na ndeysaan maa ngi xool nii de. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. kontaan naa lool. sukuraan sukuraan nag bu tëdd sukuraan ah xanaa woo Baye Jili. woo naa Baye Jili mu na ma ko sax danaa ñëw jéem suba damay dem suba. waa jeex na kon yow baal boo ñibbisee rek comme te yaa tukki boo ñibbisee rek nga woo ko incha allah. jeex na yow sama xarit nga. kontaan naa ci yow kontaan naa ci la yàlla dafa jàmm ndeysaan ñu ngi koy bëggee lu bare bari alseyni ah. sunu soppe la sunu xarit la nit ku yàlla baaxal xamante wu wuñu su mosunoo gisee waaye amul bis bu émission bi jot te jëndul di dugg ci ligne bi tubarkàlla tamit góor yàlla di nit ku baax wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant nag di ko sargal di ko ñaana yàlla defal ko jàmm nanu delluwaat régi xool sunu xarit sunu mag sunu soppe Papa Gueye mi daal di mu baax ma la mënu indil ci jëmmi Serigne Saliou ja jëmmi Serigne Saliou Dia la mu way ci matam nga noonu ko dem xool ci ci bismillah te dikkaat ak jàmm léegi léegi ci plateau bi day tàng day neex dañuy yokk cere dolli ñeex ne naa la Angleterre ak pomme de terre terre rek a leen boole te it nag kuy jumbay jaawale itali ñaari tali di xam ne tele leen boole kon Papa Gueye daal di ñëwal ma xool looy indi ci bis bi bismillah kon min jaawale matam gi matam Abdoulaye sët ba séeréer la ci way wee morom Sëriñ Saaliw Mbàkke kenn la Sëriñ Saaliw Mbàkke ku mat kee ñi ko min dootum jaawale matam gee matam gee wala jëfam yee Abdoulaye sët ba séeréer la ci way wee في سالم باقي كند وسخوان القرآن لا تسلم ظالم جفم يا ورد الفنانو أنا ورد بير كرقتي خلق نيم يا يسانقول مولا دنسا lanu daaj mës a dox ba joomi loxom baa di gëstoo aw toog ba muy xibla daawul waxantoo daawul defantoo mës a muy wax di jullee yofoon ci jàmm yi fa daan dem siyaare masaanaa ñëw njurul moom sëriñ bee oto bay ralaan kiir nga seen ko melom adam ge waral jëfam yéen ko taaram ba ñëpp naan ko mbàkke saabu waxee bopp dal la yey reetaan ba man ñay wëndeeloo maram xay kadaal bëtu yërmaandeem ñuy wër dongo yee sëriñ saali way kamaan bu xool jaalaat te des a wër lee biir oto boobu doxam ya saako waxee doon bu dal salaamu aleykum ngeen jurul ne masaana toog ca njoowaanu kees ga sey saali woy kamal ko joowee ba dinte gaw xol ga tëm ya atam ngee waral jëfam ci yey naaw sant yàlla ci bis ba saako waxee doon bu dal waxaleen waaye xam bu julli wan gee gaañi taxawal kuréel yee sëriñ saali woy kama ambale ma waayi bu jës bong bu daatee madam gee waral jëfana aaloo dootu wax dootu yëngu saaba waxee moo ko lu noppee mu dal ni wër leen ma gaañee waram xay ka daal mas na maa woo doon ma bësuloo ci moom nam bay ni jaaxle dab ma kaw teeg nit ñi aw melo sëriñ be da jëfatee cheikh bi yaa tax ma am lii cheikh bi jo yaa jël sa njaboot gi jox sëriñ be yaa dégg waxam jaa wax leen ma ndaw ñee ma def ci ko man nga di seex man nga di seex maru bëgg saalikal taabee am nga ngërëmal seex beeco yaa ngi ci yoon nga xol cuun cuune xaadim cuun Espagne njariñu dongo tarbiya waaw satu sar njurul borom bi taale fàttewu ma sa jurul ba asan xol sedd yaram tangna xel papa gemi daldi di mu bax momu ñing koy sargal diko ko diko ñaanal yalla defal ko jamm loolu nga xam ne way na ko ci sang bu tedd ba Cheikh Saliou Mbacke sunu xol sedd na ci papa gi yàlla na la jëg yàlla na jëm kanam yàlla na doon sa njiglaay ci barke borom Touba bisimilah mbokk mi ci ligne bi allo bisimilah asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh maa ngi woote Gabon ndeysaan ñu ngi lay ziyaara sang bi tur bi naka la tur bi Ablaye Daf Ablaye Daaf ñu ngi lay bëggee lu bare bari naam Daaf naka waa Gabon baa ñëpp ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. Ndeysaan yàlla na jàmm yàgg yàlla na jàmm yàgg. nday euh, Seex la. Ndeysaan Ndeysaan tubarkalla. mais vraiment ñu ngi bëggee. ay waay fii la paix yéen a ko moom yéen a ko moom. émission bon pour tout le monde malheureusement olof bi daal leerul. Ndeysaan Ndeysaan. mais vraiment ñu ngi lay ñaanal yàlla. amin waay daaf amin daaf yàlla ko bokk. li ngay def du murid kese la quoi. dëgg la affaire yoonu la affaire nit yu baax. ci affaire affaire ñëpp ko bokk. ñëpp ciy gis seen bopp affaire l'islam ko moom. ñëpp ciy gis seen bopp. mais vraiment maa ngi lay ñaanal jàmm daal. ndeysaan amin waay papa amin papa yàlla na yokk daal. amin papa amin xol sedd na ñu ngi lay béggee lu baax a baax a baax. ndeysaan ndeysaan xol sedd na xol sedd na. jaane morit yëpp ay lislaam kese la. dëgg la dëgg la dëgg la. mais waxin bii daal neex na. jërëjëf papa yaa ko moom. jërëjëf neex na nu loolu loolu loolu vraiment. jërëjëf daaf jërëjëf daaf baal ma ci olof bi mais. ndeysaan ñaanal la rek. leer na leer na dégg naa baat yëpp leer na nañ leer na nañ tubarkàlla leer na nañ jërëjëf daaf jërëjëf daaf jërëjëf ndeysaan macha allah macha allah macha allah sukuraan sunu xol sedd na ci moom wax dëgg yàlla ma ngay wootee ba Gabon nag sama waxi dem mooy sama waxi tey nee naa leen Gabon fi mu ne naanatu naanatunu ndax émission cant gi nee naa la bu 6 heures jotee foofa ca Gabon dañuy génnee télé yi jal ko ci mbedd yi yeeg ci marché yeeg ci bopp ko ñi sénégalais yëpp fàq ñëpp daw génn ñëw toog di seetaan émission cant gi ñu ngi ci ziar nag képp tarixa bu nekk biir Gabon ziar nañ la sargal nañ la famille caw as Thiaw sama xarit ñu ngi koy sargal di ko bégee di sargal ñëpp di ñaanal ñëpp am jàmm du ñu fàtte waa Côte d'Ivoire ah ndax waa Abidjan tamit ñoom ña ngay wootee waa Mali ngay wootee waa Guinée Bissau ngay woote waa Afrique du Sud ngay wootee fépp ngi wootee ndax tubarkalla nee naa la diina rek ñor réew mi lu baax rek ñor réew mi lu neex rek ñor réew mi te yaakaar naa ne fii la baaxee fii la neexee fii la fii la fii la jaare yoon kon yàlla na sax ci barke borom Touba bisimilah mbokk mi ci ligne bi kookan la ak fan ngay wootee. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Omaro. ñu ngi lay ziar soxna si tur wi naka la ak fan ngay wootee. maa ngi tudd Fatima Niass. Fatima Niass Kumba Abdallah ñu ngi lay ziaral lu bare bari. maa ngi wootee Yaraax. ndeysaan naka waa Yaraax baa ñëpp ngi am jàmm. Ni sejam. Mahallah, mashallah, yang sejam ya? mi ngi lay ziar. fil la rawee fii la rawee fii la rawee. kontaan nañu ci yow kontaan nañu ci yow ndeysaan ba yaa ngi am jàmm naka koor gi ba jàpp hmm. la. <laughs> kër gi jàpp ma. maa ngi sant yàlla bu baax ndeysaan ndeysaan bég nañ lool ci sa wote yi bég nañ ci lool. kontaan nañu kontaan nañu ci yow trop. la la la la. nañu la bëgg Cheikh la raw bëgg bëgg na la bëgg bëgg na la la raw. wax dëgg yàlla. amuñu seen fay amuñu seen fay. dama bëggoon maye dédicace. amul benn problème ñu ngi lay déglu bisimilah. may naa sama papa ak sama yaay. dëgg la dëgg la ak ndeysaan. may naa ak sama sama sama xarit yu baax yëpp. ndeysaan. ak ustaas Jatare sama ustaas boobu noonu nga xamante ne moom moo ma jàngal moo ma yar. ndeysaan macha allah. ma yar mën naa ni moo ma ñoom ñëpp ngi lay dégg. ma demee bay ma demee bay def dara loo xamante ne liiwul sax. Mm-hmm. baaxul sax damay fàttali ko te wax ji ma waxoon. ndeysaan ndeysaan. newoon na inni uksidu sawta amiran. ndeysaan daan takk sa fii darsan fa darsan mi sabbatan ndeysaan fa taxul na daaba. ndeysaan na haaki xaalam mu set ko. ndeysaan li sama xel demee rek sama loolu foor na. tubarkalla foor na foor koy ñaanal rek yàlla na fi yàgg te waay amiin amiin amiin di ñaanal amiin waay. kontaan soxna Fatima jërëjëf a fees ndeysaan soxola fees soxola sedd te tubarkalla nag lépp loo xam ne dafa fees ci xol rek dana tuuru ci làmmiñ mbaa mu tuuru ci jëf mbaa mu tuuru ci doxin mbaa ci waxin kon nag Fatima xamal na sunu xol sedd na ci yow dugg tubarkàlla yaa dugg yaa wax sa mbégte waaye xam naa ne ñëpp bég nañ kuy seetaan télé bi rek jàpp 2STV di seetaan Omaro mu Cheikh Béthio ci émission cant gi rek sa xol sedd na ndax lii rek la réew mi bëgg réew mi diina rek la bëgg réew mi lislaam rek la bëgg réew mi baax rek la bëgg réew mi jàmm rek la bëgg kon yàlla na fi sax maama su Mbàkke mu baax ma Murtala ñu ngi koy ziyaare sunu yaay bopp ja yàlla na ko yàlla dafa jàmm kooku yaay Babacar sama téer bi soxna si ñi ngi lay ziyaare ñi ngi lay sargal yàlla na la yàlla defal jàmm Mbàkke Balla Mama Sumur Salaam Mbàkke jërëjëf mbokk mi ci ligne bi bisimilah. aleykum salaam wa wa barakaatu. kii Paa ma paasam Fatkine Midadi. ah bisimilah kooku kooku sama soppe la. allo Omar. <laughs> Fatkine Midadi mu papa gi Midadi. waaw loolu foor na ah, Omar maa ngi ah, kontaan tubaarkàlla loolu dara fayu ko sama xarit bi dara fayu loolu yow ñàkk ki ñaan barki Serigne bu baax amin Fatou Kiné amin yow sa xol daa rafet barki Serigne Touba jërëjëf jërëjëf jërëjëf sa gaa yëpp a ngi lay déglu barki Serigne Saliou Mbacke ndeysaan ndeysaan ñu ngi siyaare mbokk taalibe yëpp dëgg la waaw dafay jiital sama papa ji papa Guèye mi daal di ndeysaan dégg na la tubaarkàlla ndaysan ñom Abi Diop bàyyiwuma kenn ñom Coro Aram ndjay bayuma kenn ba ci Serigne saliw deug la ñom Maguette sambu Fat ndjay ñepp ngi ni toog ma jigen di la di la setan ndaysan ndaysan ndaysan so soppe yoy ba ci Serigne Touba jaaral ma len ñom ma jigen sama soppe ya. Maget sambu borom ba day ngi ni toog Maguette sambu nuyul ma ñepp ziaral ma ñepp ma ngi len di bëgg di ko deg ma ngi mo ci am sa xarit ndaysan sama rakk bop ja sama xarit ba ya jaajëf deg na way Omar way ya yaa ko moom Fatkine ya ko moom doole jën ndox la sunu doole yéen la sunu waxi démb mooy sunu waxi tey yéen a baax rek ñun duñ ci dara ay xalaat rek di jéem dañu jàng rek danuy dañuy góorgóorlu ndax lii ñuy taxaw di def tey di jàkkaarloog télévision àddina dund seetaan en direct ñuy animé émission bu toll nii tubarkàlla àddina di ko suivre di ko biggee ndimbalug suñu borom la ndax du dañu jàng lii danoo waroon toog ci classe yi di ko jàng doo koy mën danoo waroon jël xaas def ci bari def ci école yi di ko jàng ngir doo koy nag doon yàlla mooy maye yàlla nu ko may wax dëgg yàlla ak seen baax yéen ñi nga xam ne yéen a baax duñu suivre seen xol rafet am ñu seen fay yàlla na yàlla defal jàmm damay dem nag ba Njaasaan ziyaar ka nga xam ne mooy Cheikh bu Jóob mu baax ma tubarkàlla jàmbaar ja mën a way lool di way ci ma bu konta Njaasaan lu am solo nanu dem Njaasaan seeti Cheikh bu Jóob te di kàcc plateau bi bismillah Yeah. albuna laajal cariat jàng na fa Qur'an ba garab yi tontu ko laajal waa saara gët yi ak gan nu bokk yàllaa leen yàgg suturaal innal fadla bi yadillaahi yu'ti man yashaa'u te keral na kunte ndax loolu dafa yéeme état bi sax ba muy audité sañ ci buuna ku yegg jëm bismillaahi may waxi way tàmbale المال بتيك تحيا وصاحبي وزوجتي أكنا يا نيسان كلاو بوي ويلي سبب بمويكي wa xeer wa naan bu koy weeral te woo ko nu dem xool si yaa ne nay saan xoolal guddeem gi ak fi mu tombeel ci weeru Saxbaan yàlla ko xool ba yàgg mu jagleel ko weeru Saxbaan laaj leen ñi xam njariñ li ñu wax yëpp ci weeru Saxbaan koo lim ku baax xamoon na ñaata alaaji Maalik jàng ba rey na xamoon na ñaata tubarkalla xol sedd na xol féex na jàmbaar jooju ñu ngi koy nuyu ca Ndiassane tubarkalla Cheikh bu Diop di ndaanaan nag loolu mën a way ba dee tubarkalla yàlla na yàlla wéral ay cëram te it na guddalaay fanam yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu te wér li muy def ci Mame Bou Kounta Ndiassane yàlla na ko gën a man ñu ngi ci ziar di ci sargal waa fondation Kër Rasoul ma sekk Thiam bu baax ma président tubarkalla du ñu fàtte soxnam sa pend calawu ñoom ma ne ñoom Moustapha Samb ak gaaya tubarkalla ñu ngi sargal ñëpp di leen bëggee di leen yàlla defal leen jàmm am nañu mbégte ci ñoom ñi ngi ziare mama Awa Dieye kooku sunu yaay la mooy yaay jotul la yeeg Ndeye Guèye ma nga fafe ca Sacré ngi koy bëggee lu bari bari di ko ñaan yàlla defal ko jàmm mama Kolle ca Amérique sunu yaay ju baax ja ko ko yaay Adja ak Thiaw laay ñu koy bëggee di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla na yàlla wéral ay cëram te nu guddal ay fanam tey bi nag am nañ ci mbégte lool ñu ngi jégalu nag ci retard wi doota lamati incha waaye am na nu mbégte ak kontante ci jàkkaarloo waate génn ci seen émission bu mag bile xam naa na nag fii lañ koy yemale ba beneen di la njëgal ne suba am nañ invité wu mag ñu koy wax ajjuma rum naa sukóor di cantaakoon di taalibe Cheikh Béthio Thioune moom la ñu dalal suba ci plateau bi mu ñëw fii rëkkati fi xasida Serigne Touba yi rëkkati fi bindub Serigne Touba rëkkati fi la nga xam ne moom la Serigne tubaa def ci 7 tonnes 500 te mu yëm àddina ba tax na tubaarkàlla suba nañu ko waajal ñi nga am mbégte bu baax di gërëm nag sunu sponsor leader Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall mu baax ma sunu téyeer Babacar Ndiaye mu baax ma mi ni ñawal yàgg noo ñawal te baax ci ñun yàlla na ko yàlla defal jàmm numéro 77 la 204 loolu mooy numéro Babacar Ndiaye 77 204 91 30 sama rakk ju baax ja Fat Diallo nee naa la yow ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi émission tey bii yow laa ko may yaa ko moom sama rakk ju jigéen ju topp ci man ma ca Liberté 6 ak sunu waa kër yëpp ah sama famille waa kër maam ca Kastoor waa jëppal ba wunu kenn yàlla na ñëpp am jàmm bàyyi si sa borom kéemaan yow lañ jagleel émission bi tey yow lañu ko duppee waajalal ndogu nag te xam ne ñi ngi ñëw ngi ci yoon tey foofu la leen ca parcelle borom kéemaan yaa bari kéemaan yàlla na la yàlla defal jàmm nanu xool sëñ baara Mouhamadou Lamine Baara Fall la ko Moustapha Samb way sunu sponsor sunu partenaire ñu tëjee ko émission bi ba suba ak jàmm mbégte ak kontaante jëlee nañ ko ci suñu jëmm yi jëmee ko ci yéen yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf ba suba jàmm baaraay Mamadou Lamine Mamadou Lamine baay baaraay Mamadou Lamine Mamadou Lamine way la leen maay Serigne baaraay Mamadou Lamine Mamadou Lamine baaraay baaraay Mamadou Lamine Mamadou Lamine ay waay jëlal nga diine dooleel nga lislaam Mamadou Lamine baaraay te gaaw lu mu wax yàlla ni waaw jubóom ak sa borom ba loo ko ñaan mu nangu xam-xam bi la yàlla jox yaa ngi si dimbali jàmm ñi ku biir sa baatin defal nu ñaan ki jawaay arrêt du balees xam nanu la Mamadou Lamine Baye leen ma baraay baraay mu ma doom fallu Mamadou Lamine Ba Cheikh Sidi Mokhtar xalifa général Mamadou Lamine Ba Serigne Moustapha Mbacké ñoo ngi lay siyaar loxo jokkoo ñu magal baray baray Mamadou Mamadou Lamine Ba wallaay siyaareen siyaar leen man siyaar ji naa siyaar naa ku dem ba Tuuba xam ni Bamba waajal siyaar leen siyaar ji leen man siyaar ji naa ku dem ba mooy boromi leen siyaar naa leen siyaar leen man ji naa dem ba fa sëriñ daara xam ni mooy boroomi kii maan siyaar leen siyaar leen siyaar na mm, dem ba fa sëriñ daara xam ni mooy boroomi kii maan siyaar leen siyaar leen siyaar na sëriñ Tuubaa mam aji Malik ci Tiwaawan cheikh sat bu ca nimsaan cheikh bu kunta njaasaan maam limaamu lay ca yoo seydi barhaama kawla ñëpp nga doyloo dinaa la way baara ne leen baara way leen baara way leen baara Mamadu Lamin baara awa mu sëriñ Lamin baara faa way leen baara dundal leen baara am na